sama set bii ma janool daf ma wax ci lamiñam ni ma fekk ni ma président lay Wade dafa dem Yaman mais biñ ko génnee ci télévision bi dafa mel ni yonent bi yu baax yi mu wax ci Yaman daal xaw na doy waar ndax dafa mel na réew ma dafa làpp ma ni ko boobu daal awma ci tontu sama xel daal mu ma waaw dama ne woon naa la ko wax rek pour pour pour daal ñu teg ci ñetti fan xale bi ñëw ni ma am na chaîne bu ñu wax tv yónni na Frédéric Mitterrand fële ca Yaman ma ne ah kooku occasion la nañu seet lu mu fa jële yàlla ate moom mu seet ko ma it ca mujj ma seet ko ñu daje bu ni ma noo ko àttee ma ni ko ñaari kaddu daal laa fa dégg yoo xam ni mën nañ ci sukkandiku seet naka lañ ko àtte mooy anglais bu fa yàgg lool ñu ni ko loo yéene réew mi mu ni pétrole bañ fi am te pétrole léegi mooy richesse su àdduna mu ni pétrole bañ fi am rek laa leen yéene waxit bu am solo ci ko xam seetlu ndax yonent bi dafa ni di laaj suuf si mu di leen jox ngeen di foy di ngeen laaj suuf si mu di leen jox ngeen di ko foy di ngeen laaj suuf si mu di leen jox ngeen di ko foy ba dina am jamono ngeen laaj ko mu yuuxu ca kaw ne amatuma lu ma leen jox ma ni ko ca la waxi tubaab boobu dellu ñaanalu leen pétrole parce que xam na ne àdduna pétrole du résoudre problème xala ko wax waaw mu mel ni kon am na lu muy dundal ci biir suuf si bu ca loolu jotatul rek dal di lompoñ xala ko wax waaw bi ci des mooy dafa fekk koo xam ni amul kàttan di tabax këram di tibb ci suuf si di tabax mu ni ko mais mënula wot ciment wala ban mu ni ko fii suuf see gën ba ci tabaxee kër du yàqu mukk ma xam ni yooyu ñaar dugg na ci li yonant bi waxoon ni ñoom barke ngi ci ñoom parce que koo xam ni foo tibb mën nga ci tabax kër sa réew barke nga fa tabarkal la ma ni ko noonu daal laa ci gis-gisuma ci leneen parce que xale yi dañuy laajte rek laajte rek laajte rek laajte rek tabarkalla te laajte bi it baax na ayu mu mel ni kon àdduna bi lii ci xew nii yëpp baax na waaye it ku yóbbu bàyyi ci xel yóbbu bàyyi ci xel ndax li yonent bi waxoon yëpp ni dana ñëw dana ñëw dana ñëw di ngeen dem laaj suuf laaj suuf ba dootul am lu mu leen jox